amateur yi bés bi dellu si waat na Fallou Ndiaye ñëwaat na ana nu mu àndal li mu àndal mooy TFP di tournoi Fallou Ndiaye production mbokk yi daal le 25 février ndongolo ak Pape Mbaye ah la njàmbur ak Mor Fadam ñooy daje mu di drapeau waa 55 junior. doomi Daouda Faye ya moom la ko tudde seti seng-seng yi mbokk yi bu kenn fàtte waaye général bu faas ak ñàkk jëriñu bu kerogee lay leer mbokk général ndax day am ñaari victoire ñàkk jëriñu am ñaari défaite wóoragul jàppal drapeau des amis d'enfance mi ngi noonu bis booba waaye gabarsin day bëri ak king kong mu di drapeau Dakar ak mbokk yi booy jonn ak bébé Malick Niang fils de Zallo daje faak Léopold Ada ak ardo Pakala ak Sanjambur doomu Yoff war cee daje ak kan caatu Daawuda Fall Pape Jank ak kan caatu Xaar Yàlla Fall Ndiaga war a daje ak Pape Sow mbokk yi lamba jaa ngi noonu supporter ñu ne tribune 2000 francs tribune amateur ñu ne francs loge francs le 25 février la Fallou Ndiaye fas si waat wan leen xale yi dàq bëre ci lamb ji mbokk yi daal bu kenn fàttali cay lamb.